waaw ah, vraiment di ko nakarul rek en tant que sénégalais parce que saawaay xoola yàlla nattoon nañu saawaay Sénégal bu ñu nekk nii jamono ju ñu toll nii may la sumu waay jaay doole bi xoola dafa ëpp quoi te lu ëpp tuuru am lu ma laax bàyyi léegi bàyyi saawaay ba ana yërmande bàyyi xanaa ñëpp duñ ay doomu aadama duñ ay sénégalais yéen policier yi saawaay xoola policier gendarme GIGN BIP DIC brigade recherche yéen ñëpp may la sumu waay xoola ñun sénégalais ñun faalewuñ leen te ragaluñ leen pour muy clair quoi bu ñu leen joxee respect parce que tenue bi la te tenue bi may la sum waa xoolal ñu ñoo leen ko jox ngeen war a nekk ay soldaaru senegal bëgg senegal di yërëm sénégalais yi surtout waroo leen nekk may la sum waa xoolal di jaay doole wala lépp loo leen ëppalee sénégalais yi may la sum waa xoolal jaaleel leen ko sénégalais yi xoolal seen ay mboq nañ seen ay frère nañ ay doomu senegal nañ ni yéen. ñoom bi ñu leen ëppalewul xoole fii Sénégal yéen ëppalewu leen foofu fii si biir Sénégal est ay dégg du ñëpp nax parce que bëri na ay policiers man j'en connais j'en euh, euh, ai des amis des policiers des gendarmes macha yoo xam ni sax ñii samay mboqum taalibe nañ ñii vraiment ñu baax nañ à travers musique bi nekk ma xamee ak lépp est-ce que ay dégg policiers yu bëri yoo xamante ni nii xam nañ ni lépp li ñuy dénoncer may la sumu waaye dëgg la ñu ngi siy encouragé ñu jaaree fa ba xaritoo ñu nekk vraiment ay nit yu baax ñu bëri voilà mais da si am ñoo xamante ni nii ay clochard nañ tekkiwuñ dara di jël maam su mu waay tenue bi maam xoolal di ko mubboo di jaay doole ñooñ ñooñ nañuy waxal te yërmande xoolal ñu ngi lancé alerte yéen ñii xoolal ngeen bàyyi lu ngeen di def te sénégalais ma ne la su mu waay di leen yóbbu di leen torturer di jël sénégalais ma ne la su mu waay xoolal di leen collé ay motifs yu ñu deful ma ne la su mu waay xoolal jël sénégalais ma ne la su mu waay xoolal kenn fay la ne la tëjal ma kii yow nga jël xaalis bi corruption yi ngeen def si tali yi ñu yëpp sib nañ ñu demee am nañu sax ñoo xamante ni si yéen xoola dañuy tux yàmba di naan sàngara di sàcc di ànd ak xoola ay bandi di dem di sàcc ñu yooyu yëpp xam nañ ñu demee Sénégal nañ dëkk bàyyi ku baax bàyyi leen seen yooyu te yàlla tax policiers yi wàcc yoon am na loi ñu wàcc yoon ñooñu ñuy wax ak ñoom di dal seen kaw te am nañ droit dal seen kaw parce que ñoom jiite yoon suñ deful yoon nag dañuy dal seen kaw en tant que porteur de voix askan bi xoolal di wax suñu làmmiñ moom moo leen nit yi leen bu ñu leen joxee respect xoolal tenue yi moo tax kon wàccee leen seen bopp ngeen dal yaa ngi dégg te ngeen yërëm sénégalais yi te ngeen bàyyi sénégalais yi ngeen di reyaa ah. sénégalais boo leen fi reyandi ak xaw ma ay xaw ma El Capo xaw ma yow policier boo xam ni sa der moo sax gën a yàqu mbalit may la su mu waay sa réputation bu bon def ay rasta takk jaaroo mais c'est pas sax militaire c'est pas sax correct en tant que si guy sol tenue takk say rasta dem ay soirée naan da ngay baatere ñii naan da ngay tox yamba ñaan naan sangara ñi naan góor jigéen nga mais kooku noonu saa police sénégalaise may la su mu waay lan dañ ko xamee si professionnalisme kooku dañ ko waroon wàccee dañ ko waroon simi si saa si yóbbu ko si kaso bi parce que asanu lëmb mënuñu taxaw ne kii moo rey booy bi ba pare may la su mu waay xool ñu koy jëlee Thiès di ko yóbbu feneen loolu du yoon bàyyi saa waay te yàlla tax te loolu ñu koy dénoncé di lancé message kooku nañ ko simmi te nañ ko yóbbu si kaso bi te Sénégalais boo leen fi reeti yéen policiers wala gendarme yi dinañ dem ba fi ngeen ko reyee dinañ waxan xoola dinañ waxal xoola askan boobu noonu xoola mobiliser boo moytuwul may la su mu waay xool nañ leen fekk xoola ba fi ngeen nekk may la su mu waay xoola jëflante ko wax yéen que ñun ñoo leen ëpp téeméer junni yoon ah. mooy lu ma wax da ngay gis groupe nit taxaw di xeex benn policier ñëw taxaw gars yi baa mu sedd joxe respect les sénégalais son civilisés te sénégalais xoola ngeen baal ma si wax ji mais xoola jamono gi ñu bëri ay tàppat nañu noonu la demee may la sum su ñu bëri dañuy daw coow si lu bëri xeex bi ñu war a xeexal seen réew sax citoyenneté boobu noonu sax xoola amatul. est-ce ay dégg manifestation da ngay woote loo xamante ni nii pour Sénégal bi yëpp la pour sax policier yi la lu ñuy kaas pétrole pétrole yi may la bu balee ñu koy séddoo policier yi dañuy jot seen wàll. kon bu ñu taxawee du ko xeex ñoom ñu ngi leen di ko xeexal ñu ngi koy xeexal préfet ñu ngi koy xeexal may la sumu waaye xoola képp kuy sénégalais est ce ay dëgg mais may la sumu waaye xoola jaay doole bi dictature bi la dictature loolu yëpp Macky Sall moo ko indi Sénégal Macky Sall moo fi indi yooyu Sénégal parce que jaam la loolu loolu moo am saawaay nit ñi saawaay ay ay ay man li may wax man dëgg laay wax te yàlla tax li ma wax man regalu ma ko dëgg laay wax te yàlla tax ngeen teg kaamil léegi ma bu ma dee jàkkaarloo sama borom waxaat ko fa xam naa ne du ma fa jëlee gàcce barki Baye Niass est ay dégg Macky Sall bu ay affaire de jaam yooyu noonu may la sum waay xoolal jeexul woon Sénégal moom ay Marème fay Sall ñoom ñëpp Sall Macky bi ñoom ñëpp may la sum ay affaire de jaam yooyu bu jeexul woon Sénégal heure yii may la ñoom ay jaam na ñuy nekk mais nañ xool seen papa yi ak seen maam yi ñun Sénégal lañ dëkk bàyyi ku baax. Marème Faye askan bi nañ ko boycotté. parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa lépp lu mu waxoon si mandarga naafeq gis nañ ko si Mariam Faye Sall bu teemaa la sum waay mu ñëw naan day organiser ay wasifa ay daara naan day dem daara day dem di jullee fii affaire yooyu noonu bu subaa ñu gis ko pare mu ñëw day organise ay sabar woo ay musiciens am ba da jaar droite wala nga jaar gauche soxna si. est-ce que yaay dégg say bluff yooyu noonu ngay def ah ak di jéem a naxaate askan bi loolu yëpp yeewu nañ si bu baax te xam nañ ñu mu demee xol nee naa la xol mooy nit nee naa la xol mooy nit yéene mooy premier farata si jaamu yàlla bëpp boo gis mun nga yor sa poche cent mille francs jékki saay jël ne da ngay maye boo taxawee di ko maye yéene bi fekk foofu noonu ngir sàlla nga ah xaama baat rek pour jaaree fa waa ji woy ma ma am tur wala xaama maye ko après bàyyi fi coow li gaa yi naan diw moo fi maye amoo si ñaar dërëm yow xaalis bi ngay maye suñu xaalis la yow la moo tax yow maye sumu waay balaa sa jëkkër président la moo tax daanoo def yooyu <laughs> sénégalais yi dofuñu de xaalis boobu suñu xaalis la baal askan bi ngay jéem a nax te xoola booy yem xoola wala ngay lijjanti nga am foo koy lijjantee nga bàyyi ñëw di dugg si dëkk bi fii di semé le bordel parce que day jég saa yi génn dem fenn may la sum waaye xam nga nit yi dankaloo fa te foofu noonu xoola incident bu ne mun na fa xew lu mun na fa xew mais may la sum waay mais benn rancunier parce que rancunier yaa fi ah frustré yaa ngi fi dañ nekk ay sénégalais juddoo fi màggee fi yaroo fi yaa ngi dégg Sénégal amee leen loo lool te fay fayuñu ko est-ce yaa ngi dégg alors ñu nekk rancunier moom bu génnee dem fenn may la sum waay yàlla natt ko benn rancunier saa waay attaqué ko wala dara. Sénégal baay dërëm day yàqu ñu loolu bëgguñu ko est-ce na yem benn place te tamit sénégalais yëpp nañ ko boycotté waaw ndax mooy li ma la xoola mandargay naa fekk yi nga xam si yoon si Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam joxe na ko ñun gis nañ ko si moom <laughs> noonu la demee quoi yasaay noonu la demee alors di wax ni incha allah ñu ngi préparé suñu sortie vidéo single Këram Moulay Mass incha allah bientôt dans bientôt dans les bacs xama waaw parce bu dara lu dara tamit ay rappeurs nañ te rab bi dañ koy jox lu moom yéen la ma gën a xam teewul lu tamit lépp lu ñu metti si askan wi dinañ gën a waxoo en tant que làmmiñu askan wi en tant que porteur de voix jaamu si yàlla wu ñu bë soxlawuñu dara wu ñu dara ñun saa waay mooy la sum waay xoola ñu ngi nii si mbedd bi amuñu complexe xoola kenn mooy la sum waay affaire de star yooyu noonu wala bë sax dunduñu ko. si ay dégg te bu ñu kenn xool si mbedd yi may ne su boo ñuy bëggee xoola jëlal message bi nga xam message bi xam ni xoola pour Sénégal la mais lu jëntiwuñu xoola nga ñuy xool naa la mooy loolu ok bu la neexee nga encouragé ñu quoi loolu nañu dolli xam nga lu ma la mooy loolu mais ay affaire de buzz yooyu xoola gàdd dem quoi ñu ko xam nga lu ma la wax Khalifa rappeur la et que làmmiñu askan wi ba time is bi semaari wut